sama gox sumay xarit dëkkandoo laa bëgg a jéem yaay fu ma juddoo màggi fa laa bëgg a delloo njukkal ñoom yaay mag am di jàmm yéena moom lii bi nga juddoo ba léegi royukaay fa nga ne woon ba léegi jugu fa HLM jaaral na ma lu kon suma gox sumay xarit dëkkandoo laa bëgg yéen kon fi ma maa ngi fa laa bëgg a delloo ñu yaay mag am di jàmm yéena moom lii bu sol mooy mooy maillot bu jaune bi donc bii dañ ko def typiquement mu nekk maillot haut de gamme nekk beneen façon type de player donc bi player la woon te ne si bokk na si si player yu yu gën a nekk en mode donc boo xoolee col bi colorable la donc yëpp day nekk accessoire yu bees yoo xamante ne day tax maillot bi valeur donc fii boo gisee dañ génne logo HLM comme comme ni ñu ko defee donc def ko filigrane

pour waa HLM donc yi accessoire bi daal la donc yii ay maillot pour staff bi la maillot d'entraînement staff moo nekk nii donc <clears throat> bii maillot loisir de compétition la moom bu ñu demee stade donc am na am na donc am na yeneen daam yoo xamante ne am na comme par exemple lu mel ne sac am nañu sac am nañu sac pour pour. Euh, pour pour joueurs donc on après bien nous présenter donc loolu mon nek mon nek euh, gamme yu HLM am donc. donc danaa bàyyi kaas bi donc yii pour le les marketing yu HLM moom expliquer par rapport à lan lan mooy objectif tay ñu liggéey entre Talent correction ak euh, ak ASC HLM donc mom dina expliquer en termes de marketing lu ñu génn si bi. ça veut dire fii ñëpp xam nañ ne loyer modèle la woon donc HLM yéesi taane la defe naa ba HLM cité port donc dañu représenté ñu ko fii yëpp si maye donc moom dina expliquer en terme de marketing maye bi donc moom xam naa maa koy bàyyi parole mu mu expliquer salaamaaleykum population HLM maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di leen présenter mayo ASC HLM bu ren mu nekk maillot player boo xam ne haut de gamme la boo xoolee niñ ko defaree vraiment machallah may lancé ñëpp pour ñu jënd ko mun nga ko jënd en ligne parce que maillot la boo xam ne mun nga ko jënd toog sur place commandé ko ñu indil la ko livré la ko sans pour autant nga déplacé donc ren HLM dafa innové génne na façon article bu ne pour les supporters et la population des HLM. tay saga ngi ni bo xamne mi ngi ni mën nga ci def say bagage mën nga ko jangije mën nga ci def lepp mën nga ko voyager mën nga ko def lepp donc saag la boo vraiment population hm moko tax a ben kaasa ngi ni kaasu ndek kay bo ne aussi pour supporteru hm yi la dal ngi ni donc ren comme li ñuy wax rek def nañ toutes les articles yo xam HLM rek moko tax ak supporteru HLM gaaw ngeen ñëw commandé parce que ku yéex da ngay ñàkk parce que affaire yi moom ah li ñu njëkk defar loo bi ñu njëkk defar ku yéex ñàkk article façon bu ne defar nañ ko defar nañ ay loisir defar nañ façon article bu ne ñu ngi ñu ngi lancer un appel à la population des HLM pour que ñëpp ñëw jënd ci article yi parce que ñoom ñoo tax ñu defar ko donc ñaan nañ ñëpp ñu ñëw tout de l'équipe ñu def bloc en avant l Bintu sama jigéen loo ci sànni. asalaamaaleykum waa HLM maa ngi tàllal ñëpp loxo di nuyu ñëpp di wax ni yéen ñëpp na ngeen ñëw jàpp ci équipe bi un HLMois un maillot ñëw leen ci maillot yi neex na ci yaram en plus c'est la mm-hmm. qualité. Mm-hmm. am na débardeur en tout cas matière bi neex na trop boo ko solee doo ko sentir parce que dafa duur ñëw leen jàppale équipe bi ngeen jënd maillot. ou ci kaas yi di ko ou wut ci soit c'est doom yi ak ouverture bi ak de bëgg comme sama genre à ak xale yi nga xam ne saa su ne stade la leen ñu HLM nous doon une famille soudée unie dont notre seul objectif c'est d'accompagner l'équipe fagnon de la zone 3 qui est l'ASC HLM merci. La population HLM man damay gaaw bu la lay def nos Confection doomu dëkk bi dëkk deux dëkk deux bokk si dëkk bi.

HLM mu ne par force dama koy solo da parce que parce que bu ko dañuy dañuy parce que dañuy la commission parce que HLM ñuy jàppale buñ ko HLM kon mel dañuy HLM nañuy HLM liggéey pour HLM développement HLM HLM confection HLM partout confection rek la confection yow rek kaw kanam dem kanam ak allah merci encore contact fantástico tú. Bilo tu to bane du royo kai. Fala ne won bane ki du ko fa ashalem jaral na mo le.